waa salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ah suñu mbokku diaspora yi ñu ngi leen di siyaar di leen bëggee bu wér a tey nag yéen a ngi fii ci Gueule Tapée en face euh, Elisabeth Diouf euh, dem fu sori tey ñu nag ñu amul fi benn safar bu rëy bu waa kuréel 18 safar di def biir Gueule Tapée muy waa team BZDF waaw tey daal nii lañ koy doxalee def berneer yi suba gi xasida yi daw ah euh, kaamil bi daw bu ñu paree def añi bendal yi génn ah café Touba gi di dem ataaya di daw guddi gi nag ñu lay kay amal ay sant yu amul fenn yu rëy waaw di leen wax daal yëf yaa ngi noonu seen bis la waaw. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yéen waa DK TV ñu ngi leen di siyaar bu wér ci seen wàccuwaay ak seen yëgaay ci bis bii ngeen teew ci sunu bis bii di ren ci sunu safar gi ñuy def fii ci Gueule Tapée te xam ne liggéeyal Serigne bi rek moo nu ñor te dara ñoruñu lu dul liggéeyam. waa koñ bi yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm bu wér a wér a ci seen teewaay ak seen jàpp gis nañ ko ndax Sëñ Tuubaa moom boo koy liggéeyal saa su ne da nga ciy ne waaw moom mooy mottali léppal di ko mottalil boppam. yàlla xam na ne bañ koy waaj sax daana ko jekkuwunu ko mu mujjee nañu kawe kawe suñu njott lool lool ci xew-xew bi te gannaaw yàlla loolu ñu ngi koy sant bu wér a wér a wér a wér a di ko sante sant di waaj nag màggal gi. jege na loolu waaye safar gi moom sunu diiru dund lan ko def te yàlla rek tax mënuñu koo di bañ a di def saa su ne waaw di gërëm sunu soxna yii fi teew ñëpp di suñuy mag di suñuy rak ñu suñu yaay maire Fatou Diop di ko wax mention ak monsieur le maire tamit gis nañu taxawaayam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaye donte mun a ñàkk sax suñu doyen moom képp ku mu defal lu baax lu ne day jar ñu tudd la wóor na Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni looloo waral ñu ko ciy tudd di ko sant bu baax ndax daaw taxawu nañu ren it taxawu nañu gis nañ ko waaw te tamit li ñu ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak taw féex ba saa su ne ñu mën ko teewee waa di di siyaar góor yàlla yëpp waa ëxlu Baye Mouride mbay ñu ngi leen di siyaar bu wér di leen jox seen wàccu am am nu kontaan bu wér a wér a wér a wér. oui aouzu billah bismillah inna wal ñoo ngi fi tey fii ci Gueule Tapée nu sunu kuréel 18 safar di sant Serigne Touba tey nekk cinquième édition fi nga xam ni mooy Gueule Tapée waaw ñun ñi nga xamante ne ñoo ko sasoo fii di rue waa rue 62 angle dem fu sori ñoo ngi sant. di gërëm ñëpp population Gueule Tapée nga xam ñëw nañ ñëw jàppale ñu ci bés bi même ki nga xamante ni mooy monsieur le maire tamit ñëw na fi ànd délégation bu rëy jàppale ñu ci bis bi ak ñi nga xam ne ñëpp ay bon volonté lay nekk ci dëkk bi ñu ngi sant mbokku taalibe yëpp ak sunu yaay yi sunu baay ak xale yeeg ñëpp ñi xam ne jàpp nañu réussite à cet événement bi di leen gërëm bu baax. yal na ay déwén déwén waaw xale koñ bi yëpp mobilisation def nañ bu rafet waaw waaw. déwén yàlla na dàq ren incha allah si barke Seydina Mohamed waaw bëgg à tout a monde ah maire spécial à ah, yi maire koñ bi waaw kontaan nañ si ne xale yi kontaan nañ si yéen lool. mais sant yàlla rek euh, bu baax a baax a baax di ko ñaan rek di ñaan yàlla mbas mi jóge fi ak jàmm quoi ñu koy fekk ay at yu bare bare bare bare si barke Sëñ Touba voilà bi ñu yaakaar tey ëllëg waa di ko ziar gaa yëpp nag di baalu àq ñëpp. voilà affaire daal neex na daal neex na macha allah neex na. ñu ngi toog benn ndaanaan bu rëy ñu koy wax ñaa ñaa noo gisee safaru ren bi. sant yàlla rek. di gërëm sëñ Tuubaa so mi nga xam ne moo waral lii. def nañ ko daaw def ko ren mais ren nag noo gisee safar bi safaru ren bi. waaw safar bi sant yàlla rek xam nga dafa safar yi moom dafa wutee dëpp ba feebar bi duggee Sénégal ba léegi boo xoolee. nit ñi dañoo xaw a wàññeeku parce que ñu si bari dañuy daw dañuy daw feebar bi waaye sant yàlla rek mbirum Serigne Touba moom amu tànku ginnaaw tànku kanam rek la am te sa kanam rek la jëm. waaw jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jaarama maam Cheikh Ibrahima Fall. ah mbokku jullit mbokku taalibe yi maa leen di ziar di leen bëggee safoo ndamoo tiituroo curaaya parfum tocc mi ko sangoo suuroo doolay maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw di wax ñi rek ah bisu tey muy suñu safar gi macha allah Baye Fall yi matu na ko man sëkk gars yi ndekki nañ añ nañ ba suur barki maam Cheikh Ibra xanaa ñu waajal màggal gi rek incha allah ñëpp ma leen woon nag Ndindi Ndindi kër Serigne Abdou Karim Mbacke Fallilou borom makaarimal axlaa jàmbaari Baye Mbourou Baye Sadiq suñu yaakaar tey ak ëllëg di ci woo mbokk taalibe yëpp ñu def teew doole maam Cheikh Ibrahima Fall jàmmal xewal rek jaa jëf maam